Adama Mboup maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay Adama Mboup nga nekk vice-président euh, aussi porte-parole association Ànd Sàmm Jikko Yi déjà naka nga gisee élection yi ni ñu ko déroulé daal di koy organiser ci jàmm ak salaam. waaw euh, mbir mi de daanaka dañuy sant yàlla rek mi nga xam ne xéwal yëpp moom dong moo tax ndax jàmm ji yëpp moom mooñu ko may julli ci Yonent bi sallallahu waaye di féliciter avant tout le peuple sénégalais waaye di féliciter di ndokkeel aussi ñi nga xam ne ñooy parti bi ko remporté muy parti Pastef di leen ñaanal ñu am ndam ci xaar yi nga xam ni population bi yaakaar bi ñu am ci ñoom yàlla def ñu di am résultat yu ko yu kowee seen njort ba sénégalais yi gis ci seen bopp bu baax waaye di ndokkeel it ñëpp ñi nga xam ne jëloon nañu part ci vraiment exercice démocratique bi nga xam ni sigilati na Sénégal. Euh, tey jii euh, ngeen nekk ci société civile bi ngeen amoon benn projet de loi boo xam ni soxal na leen tey jii Pastef daal di am comme niñ koy waxee majorité confortable lépp loo xam ne bëgg nañ ko jàllale dina jàll ci assemblée nationale naka ngeen fas yéenee def ak euh, projet de loi bi ñuy wax criminalisation de l'homosexualité fii ci Sénégal. naka ngeen fas yéene def yéen seen côté. waaw projet de loi bi daal. yaakaar nañ ni ku nekk Sénégal yëpp fàttaliku nañu ni. Sénégal du mbirum sax ànd saam ji ko rek ànd sa mbirum euh, Sénégal yëpp la. ndax bu ñuy dajee di woote kenn du fa xaj Sénégal yëpp ay ñëw. waaye kilifa diine yëpp dañoo signé pétition bi ni dañ koo bëgg ak kilifa aada yi ñuy julli ak ñu dul julli yëpp signé ko kon nag revendication la maanaam mébét la boo xam ni Euh, population bi yëpp askanu Sénégal yëpp ñoom ñoo ko teg ni dañ koo bëgg léegi nag ba ñu ko joxee régime bi bi mujj ñoom ñu rejeté ko ñaari yoon bloqué ko ci assemblée ba pare sànni ko fële ah loolu it gis nañu population bi eh, ci élection yeeg te yeneen euh, fànn nan la ñu réagir contre ñoom waaw yaakaar naa ni euh, sanctionné nañ leen ndax loola léegi nag yàlla def na sax faf Euh, ñii nga xam ni tey ñoom la yàlla teg ci bopp réew mi ñoom ba nekk ci opposition ki nga xam ni mooy président Pastef di tey premier ministre wax na carrément ci média yëpp euh, ci kanam média yëpp kanam population bi yëpp ni bu ñëwee toog ci bokk na ci loi mu njëkk euh, voté ci assemblée mooy loi bi criminaliser ngóor jigéen kon nag alhamdulilah comme yàlla may na ko li nga xam ni moom la doon yootu may leen ko kon ñu nit mënuñu lu dul am yaakaar bu baax ni euh, mbir mi moom dina gaaw a mhm. kon amatul benn jéego boo xam ni war na jóge si yéen dem si euh, seen côté pour affaire bi euh, ja jàll kon jàpp ngeen ni yéen li ngeen war a def yëpp def ngeen ko da ngeen di xaar assemblée bu bees bi daal di koy amal daal di kay voté waaw wala déet côté boobu nga bëgg a wax seen côté yéen. def ko ba pare waaw parce que booy gis ba koo ñële rejeté. ba ko ñële rejeté léegi mu ngi toll ci presque un an et demi waaye boobu ñun dañuy dem toog jàpp na ñàmbur xam ni fi mu ne jéego buñ fi def it dañuy perdre suñu temps parce que ñoom ñoo fi nekk ba léegi waaye nag comme ñi nga xam ni ñoom ñoo ko liggéey ni dañ koy def yàlla def na sax ñoom ah, yeewi askan wi deux fois lañ ko dugal foofu benn bi moom Mamadou Lamine Diallo moo ko fa dugal waaye bu mujj bi bañ ko rejeté waaye yeewi askan wi ci boppam Birame Souleye Diop jiite ko moom moo ko fa dugal donc nag tey alhamdulillah donc texte baa ngi foofu ñoom ci assemblée te ñoom ñoo ko fa yóbbu xool nañ ko ba mu doy leen ñu xam ne lii c'est bien écrit te neex na dooleel a ah, ñu dugal ko fa du tere nag ñun dañuy taxaw Sénégal moom toujours de population ba mu day taxaw teem ndax lii da leen a ñor mm-hmm. ñor goo xam ne duñu dem rek tudd nelaw ni ni euh, bàyyi ko kenn waaye nag vraiment am nañ ci yaakaar te tamit góor góor la parce que ñi tamit da ngay gëm ni na nga doone góor sa moroomu jullit tamit noonu la nekkee góor ba lu mu wax dina ko def de ñun loolu lañ jëm donc nag léegi ñu ngi moo tax daal mbir mi yaakaaru na lool te it mënul ñàkk nag ndax euh, ngóor jigéen mu ngi yàq àddina peeru yàq boo xam ne di nga sida bi rek fi mu ne bañ koy mujj xayma def na soixante dix huit millions de morts ah euh, daaw rek un million cinq cent mille ñu bees wàll nañ leen ko am sept cent quatre vingt seize mille morts OMS moo ko bi kon lool dangereux na dangereux boo xam te ñoom ñëpp d' accord nañ ni li tax kenn mënu koo dindi ci addina mooy mbir mu góor jigéen ak ak di jaay sa bopp nee nañ loolu moom buñ ko bawoon rek si daa jóge kooku loolu kon crime contre l'humanité la du mbirum diine rek sax waaye mbirum santé publique la problème de santé publique la menace. d'accord euh, aussi beneen euh, projet de loi wala loo xam ni en tout cas dañ doon dégg souvent ànd sàmm jikkoy di si wax euh, si faat yu bari yi nga xam ne moom mooy am ngeen doon de wàllum peine de mort est-ce que euh, loolu fas yéene ngeen yóbbu projet de loi yan jéego ngeen fas yéene def ak assemblée bu bees bi ñu war a taxawal. waaw waaw loolu mémorandum yàlla def na chaque élection dañ koy jébbal parti yeeg coalition yëpp depuis presque deux mille dix neuf te législative yi dañ ko jébbal coalition coalition parti yëpp dañ koy jébbal peine de mort mu ngi ci wane ni moom ku rey ñu rey la loi la boo xam ne dañ ko war a gaaw indiwaat Sénégal ndax nit ñi am jàmm. lool loolu léegi wëyu yi jeexal nit ñi. ndax dañuy rey ba pare dem nelaw da nekk ak prison di noos ba toog fa tuuti ñu libeere leen ñuy dox seen soxla mooy da nga tax da ngay wax ak ñu sax mu ne la dama lay rey ba pare dem tëddi waaw loolu mm-hmm. tax dara duma ci fekk loolu lañ lay wax mm-hmm. waaw loolu nag bu yombee noonu ah, mooy wane ni kon dañoo defan de mor daamul waaye bu doon ku rey ñu rey la boobaa dinañ def attention donc nag yàgg nañ ko def ci suñu mémorandum di ko jox euh, coalition yëpp ñoom xam nañu loolu ba ci coalition bu mujj bi vey bi Diomaye président yeneen coalition yëpp yóbbul nañ leen mémorandum te peine de moor mu ngi ci ni que dañoo Sénégal askanu Sénégal ñoo bëgg ku ñu rey la ndax da ngay gis euh, yenn droit de l'homme yi waaye ñu ngi fàttaliku ni dafa lobby franc-maçon yi ñoom dañuy xeex ci àddina pour pen de mort bu mu dellu si maanaam ku ñu rey la nee nañu waruñu ko de waaw nee nañu loolu moom dafa civilisé wul donc defe naa yàlla nag moo ëpp yërmande ñëpp li ñu wax ni ñu ko rey ñu rey la mooy indi seen jàmm loolu moo indi suñu jàmm boo waxee nag ñu naa ñu indi lay naan la waa États-Unis ngi nii ku ah, day ñu rey la te terewul ah, tey tey la rey yi gën a bëri mais loolu loolu amul parce que bi nga États-Unis gii fi mu nekk booy seet ah, am na de peine de mort ko maanaam ku rey dañ lay àtte ni dañ lay rey waaye booy set finalement ci kaso bi ngay dee parce que duñu reyatuñu reyatuñ fu mel ni Alaska tey ji am na cent dix-sept personnes bu ma jumu Alaska la am na cent dix sept personnes yoo xam ne ñu ngi leen àtte pour rey leen waaye depuis deux mille six rayatuñu kenn loolu nag bu xamee ni yow dañ la naan dañ lay rey waaye finalement duñ la rey dañ lay bàyyi ci couloir de la mort ba nga dee ci prison ba loolu bokkul ak fu mel ni Chine fu mel ni Iran fu mel ni Arabie Saoudite nga xam ni boo reyee moom dañ lay rey ñëpp di gis ci saasi booba tamit euh, foofu moom foo ko fa demit Chine euh, ñu ngi fay yóbbu sunu commerçant yi. Chine ak Màkka ñu ngi fay dem umraag lu ne di fa yóbbu des centaines de millions waaye ma doo gis kuñ fa agressé rey ko dañuy dem ci jàmm ñëw ci jàmm ndax xam nañu ko ku rey ci saa si dañ lay rey moo tax dangay yor xaalis yor sa or ak lépp kenn du la ñemee xool xanaa kuy sàcc suuf ngay sàcc ba rëcc waaye moom buñ la jàppee moom moom euh, wala nga rey nit kooku agressé ko kooku moom dañ lay rey boo ko teyee mm-hmm. waaw boo ko teyul nag moom tamit am na beneen xeetu jugement ak yeneen ak yeneen donc nag euh, lislaam it du tëb rek ni ko ñu réglé dafa jaar ci jugement bu leer a leer leer ba gis ni yow mii mm-hmm. te mobile c'était vraiment li loolu ñuy wax assassinat prémédité mm-hmm. waaw waaye nag mën nga rey te doo ko tey loolu tamit euh, yeneen yeneen débat la d'accord beneen ponk si euh, di haute cour de justice bi nga dégg ni euh, Ousmane Sonko doon wax ni suñu amee majorité daañu ko taxawal yéen euh, loolu da ngeen si ànd waaw wala déet haute cour de justice moom mënul bañ a bañ a am ndax dafa am ñaari xeetu rey nit xam nga rey nit bi léegi mooy jël paaka faat bakkanam waaye boo jëlee loo xam ne tey jii ministère de la santé par exemple ci misaal fa la war a jëm ñu war cee jënd ay scanner war cee jënd ay machines yuy sauver nit réanimation nga sàcc ko kooku tey euh, ba loolu amu fa ku ñëw ñu ne la loolu amu fi nga faatu loolu ci rey nit la bokk donc euh, yooyu yëpp ay crime la yoo xam ni tey di haute cour de justice foog mu taxaw waxatuma laak nag ñi nga xam ne dañ daan jox nit gànnaay ni ko ku manifester ñoo ñooñu tey jii ñoo nga tëdd seen bàmmeel te di xaar nag tamit ñu rendre leen justice ndax dëkk bu amul yoon dëkk boobu fayantoo day am waaye dëkk boobu du mën a am jàmm moo tax it pour dëkk bi am jàmm foog mu am yoon pour tooñ ñu ñu delloo ñu def la daan bu toll ni li nga tooñ. Hmm. loolu mooy waral dëkk ba régler te bu dëkk bi régler rek yëpp gi euh, ne nañu Erdogan ba mu toog dafa toog euh, wenn at ba ñaar rek euh, yóbbu ki fu sore fu mu mosul a yegg mhm. économie di naat ñu ne ko yow mais gënoo jàng ñi fi ñekk ñëkkoon a ne comment ça noo def ba toog rek après mën koo yóbbu fii mu ni loxo ñi doon sàcc rek laa téye ba ma téye loxo ñi doon sàcc rek dëkk bi naat donc suñu dëkk yi pauvre ñu mais càcc gi moo leen sonal donc ñooñu nag nga ni sàcc nañu ay milliards yu dul jeex xam nga milliard rek benn milliard rek boo ko amee. Mm. daanaka mën nga dudd cent mille cent mille francs par bis nga koy dépensé lu mat fanweeri at ak nangam te du jeex yow nga jël milliards yu dul jeex sàcc ko dangaa di yàq di pasar pasare loolu nag moom fokk cour de justice nga jaar fa parce que crime la loolu rey ñi rey nga lu jeex parce que xaay boobu dañ ko waroon a sauver ay bakkan. d'accord kon nag euh, Adama Mboup ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi. Adama. Mhm. jërëjëf Ndeye Comba. voilà Adama Mboup maa ngi fàttali ni yow yaay vice-président porte-parole bu association And Sàmm Jikko Yi jërëjëf Adama.